nada. Qual? Ah. Eu não colho nada. É dampo. Colhi, colhi nantel ou colhi seda? Ah, melhor, colhi nantel. Hum. Fumi bánh. Đi, con bolo đi. Bánh ba. Tên tàu ba. Rồi, con bolo ba. Nó khôi khôi cái này tên tàu. mais Fall kóol bi kóol tele seetoon tamit dama ci jël risque di ci jël leneen lu dul tam kii. xanaa xooloo kóol bi. gisuma ko. dëgg ci nga ci fay ten. a xam ah. taw ma jox la. waaw ten taw moom tuuti na gaal yokku ci yokku ci cinq mun boo bëggee ma jox la ko ah boo bëggul mooy loolu nga bàyyi mu seeti seeti feneen ah. mais doo jël kóol bi ngeen. ah mais bëgg naa ko jël mais tamit yaa ma gën a xam ah. waaw ah, mais coolul après naa ko jéem a jox ak mu lijjanti ko. mais xam naa si man lay gën a seddee ah. leer laal tegal pour naan tegal mais léegi Alex Sow léegi kii ko rek jàpp si rek nga joxe quinze kilos. non non si jël si quinze loolu quoi. pool bi wóor ma ne dara baaxul sa ndabar nga jox xoolal pool bi kenn. waay gis naa pool bi laas na may naan ay kii. waay waay est-ce que baax na sax jar na ma kii. waay xaaral. alcool bi. maanaam xamoon yor bu baax de yow ay ndabar rek nga may indil. yow xanaa xamu xanaa xanaa xamu kool yow. ay raxas fajar gii nii waay. watoore cho được ñoo gën man ak déglu ma rakk ji mu ko yëg de rakk ji cái ko yëg dégg xanaa nga wax ko ko booy ma sekk maa nga may business ok man la ko maa ngi fi ñun ñaar nag dégg nga ok Fala, nigga, na hora. Nice. Levo o cu, né? Foi, foi, né? Falar o mal. sant rek. mais fu la jant bi soo yow maa lay teg tànk da taxaru baay wala sëgyu ma nii daf ko ci bu timee bi nii baay. baay dama duggoon secteur baay mooy loolu xam rek faj fuy gay mais del mais instant bi kese bu timee laa nekk nii ah. aje waaw bu ñaar nga bëgg waaw bu taw foofu laa bëggoon rek bu dee. taw yi jeex na. non jàmm bu tutaw goon. waaw ah, kon coow loolu day gaaw baa muy luxus. waaw ah, baax na. ache na ko dal. may wax léegi nga may jéem a accéléré. non daa war a bëgg ah. mais bii bu xawaa bi la de. baax na foofu fajul rek.

en fait man dama fi yoroon benn kóol ah kóol bu moo sax bi mais xam nga rek kóolu naan dite la quoi dama la ko bëggoon jox xam dama koy jaay ko non méttiwul soixante dix rek laa koy joxe non booy kóol la tegal lay wax nii non rek yaa ma gën a xam yow da nga koy jaay sa gars yi xam nga sa gars yi di génn noonu yaa ma gën a xam kóol bu baax laa lay tegal nii bi waaw léegi yow yow léegi man soixante dix rek laa ci soxla waaw Hundanek, Hundanek, Sean Bisrek. Sean Bisrek. Bahwa ada yang berita, saya kan lupa. Mana aja sekali di dalam meeting ya. Kayak yo. Ah, Lim. Kamu? Kamu udah Sino es jam. Oh, santai, Bang. Hawarna. Sino. Nice. Nice, Kamu. Santai alhamdulillah.

d'accord. On vous montre ça. Mais hier, quand on la bourse, c'est que bourse, on a 36 000 francs. Moi, je n'ai pas par mois. Mais quand on 000 francs, ça ne veut rien dire. Bon, le mois de dépensé. Bon, voilà. Duria, du taradal. Bon, là, on va faire un cam dal. Cam de mel. Voilà. Bon, d'accord. On a la deux francs. Hein. Mais 3 000, on 3 000, Mais pour quelle raison Ah, mais je suis en business.

boo bëggul nag xaaral tant loolu que ça veut dire loolu mu fa demee noonu. man sama gain nga ñun maanaam yow ay gain la ñu moo tax mu am problème ñëw di ko wax tey. d'accord copain. si yow moo tax ma ñëw fii. ok matière de business amul gain xam nga man damay job quoi soo bëggee ma jox la 2000 francs après nga fay ma 3000. waaw mais mais loolu mais loolu xaw ma ko mais. loolu loolu mooy lan. bonne chance di nga gis ku la alterner dégg mu ñëw rek dégg. waaw mais yow depuis quand tu es devenu comme oh. ça. ماشي lu ne dal na la mbaa jàmm la li nga yëg bëtu seytaan dong la noon sori na la nii wala jege na la kii mi ngi fexe mil pexe ba ne mbaal na la pexe daa sosu colère daa fasoo noon laxasoog àdduna jàkk jaxasoo léegi chaque chose la ñu mettre cause nit dëpp raxasoo li mu naan pause dëgg la yaay mbër booba léegi yaay ex na nga ex mais ex voilà on sait quoi nice sinon ouais tranquille si oui cool cool ça va ça bien euh, en fait j'étais de passage chez toi comme ça uh-huh. après bon xam rek ak business yi gain foog dugg di génn quoi mooy loolu noonu sinon si effectivement noonu euh, yeah war nga ma jangal si business yi pour xam rek may mën am dara non yow jàngal rek ba yow jàngal rek yow li si jàng bi quoi ah, ok sama gain quoi si effectivement dafa ni ok d'accord voilà c'est juste que 2000 francs comme ça

How many time I was around, living underground. And now you see we burn this town. we don't need a crown. Ram rockets, ram cheese on my pocket, ram cheese on your Yo, boy, leave my life. ngay ñëwee boo jaar sama ginnaaw def sa yëf yi di ba pare nag dindi sama casque quoi. xaw man yaa ma gën a xam du ma taxawal ci mbedd mi. non mais lii mooy la heure bi may woo nii sax man arrangé wu ma heure bi may woo nii sax arrangé. yow nit ñi buñ la soxlaa duñ la gis nga réer sey kenn gisu la ci town bi te gars ñu la soxloon kenn gisu nga ñëw di pel samay casque. wala boog yow comprendre nga ni mu man heure bi saa yi nelaw laay def dal man heure bu may génn du heure bi yow ay 17 heures bu may woo di ma taxawal la heure bi. waaw baax na foofu parce que danga ci dal moo danga ci dal moo nga bëgg sey gars amul problème naka la torog bi fu mu dëkk. bay man lijjantiwuma yooyu noonu. ay torog laa bëgg de. lijj waaw baax na di nga ko am <laughs> léegi luy jël bi nga ne. naa les gars nam naal maa ngi nii rek sant alhamdulilah yaa ngi am jàmm. waaw maa ngi sa xaalis booy. taay da ngaa leer booy. génne Moussa yow leer nga gis de ah. taay moom yaa ngi leer nga gis la jox na. naa la wax benn mbir waa déglu ma rek waa déglu ma ma déglu ma tegal la rek xam lu tax ma la sax pour nga ñëw nii nii nii xamoo ko de gis nga <laughs> deux voies six ci la dundé ben affaire bo xamanteni fal Fall bugguma nga dal ci. xoolal affaire nga sa affaire bi nga dundul la quoi. wa man ma ah, ko man yow bokkuñu man yow sa affaire ak man sama affaire bokkuñu. wa mais sama dom ndege ngay foma tégal la oh, man sama jox dafa and ak bi ak bi ak bi mais yow xam nga yow ni nga jobé sétul sama gaan nga may ni nga jobé sétul quoi. fal ma bëgg nga no koy gëna a moderniser muy gën nice di gëna cool. ngay jobé non sama gaan nga quoi. dégg nga si gis nga deux voies. waaw ñëwal. barki Demba Ndiaye benn boy xoolal dama ko romb mbapp ko mbapp bu set wecc xoolal. benn boy nga jël kool bi dama ko dóor épol nii xoolal muy xaan xaani ma jël kool bi dox balaa may tourné xoolal ndeke booy baa ngi sama ginnaaw 100 ma teg ko ci. non barki yàlla ale Ababacar Si bi xoolal lañ mujj kabalaa ko fëgg rang ci bopp. xaw ma après nan la mujjee xaw ma. kooku sa nax si bu ñu mooy loolu noonu après na xoolal ci laa ne lii bàyyi mu sedd ma dindi tent beeg xam nga nice nice yaa ma gën a nëw. daawal nga affaire de tapet dem. non du affaire de tapet juste que xam nga kóolu jàmbur xam nga la moo ci nekk après nit yi bi këjëng këjëng da coono boobu laa ci bëggatul quoi xam nga moo tax man la xoolal bàyyi loolu mu sedd. xam nga job boobu ndax nga dugg ci te seddul heure bi ngay job job boobu moo baaxul da ngay ba naaj bi tàng nga kii tey kii dugg ci biir tunnel bi jàpp ne yaa bàyyi li ma lay wax ngay jéem a teg xel di ma jéem a accuser day bàyyi ba suuf sedd nga jug dox sa dox nankan bañ laa xamal dara bu nekkee nante nga laa lay wax mais yow boo yow seet naa ba seet mais yow gem googu mënoo ci dugg da ngay solal sa bopp nii nii rek ñëw xamala la lu xew ba jàmm am bëgg nga bàyyi loolu noonu defal naa ko wuy ma bàyyil dóor bi nga ñëw ñu jaay bagage da nga may defal naa ko nga expliqué ma mu leer quoi man boo ma nee bàyyi loolu la lay bàyyi laa bëgg xam dóor bi ngay dóor laa bëgg nga bàyyi nga ñëw ñu jaay bagage man lol laa du sama gain la aji na man may kan dama koy kol xolam mu yok bagage ñu gérer secteur bi lepp das mo neen bu orang tal justement xam fu tul ni da nga dug pare wax nga bu dug ci problème bagage man pareegu guma yeggaleegu guma sa nga duggal ma ci du si nga man ak mom mu job xam nga tax man ak job du valeur 700000 jox man 700000 valeur 700000 te ay dóob comprendre nga. pour ma yóbbu ko ko Zender. joxal ma ko Zender. Zender loolu 700000 moo ci nekk suba 17 heures laa ko soxla. fii bu minute boobu baax man daal maa dugg ci benn ruqaan di dox hmm. am benn boy bu taxaw sama ginnaaw saagu dóor bi daw ak ba tey jii may wax ak yow la ma seeyee xaw ma fu jaar ak moom. Fall da ngaa nag. Fall non c'est-à-dire que man du ma contrôler man kuy dox sama ginnaaw li jënti yu ma la ndax ma li ma gis la mooy time is money. chaque jour samay kanam bu may dox moom loolu laay séen. moo tax dox sama ginnaaw du ma la li jënd ak koo mënti doon. comprendre nga mais problème mu du yooyu ay dóob yooyu nga may wax noonu noonu loolu laay bañ a kii moo tax fu ma nekk sama xool ba xam kar gi sedd na wala seddagut bu xawee kii ah, ma kii waat man foofu laa ne bàyyi ma kii rek man de barki sëriñ bi laa la gëm naa ne comme que yow ma ne nga bëgg waaw bagage yi da jëndee fukk jaaye deux cent te moom moo gën a gaaw kooku dina la arrangé xamal tax même waa baax na xamal tax mu lay arrangé ndax yow sa niveau foofu laa yam waa baax na man time is money la sa bakkan bi la ñuy jël ci dóor bi nga naa ma ay këjëng këjëng saay li ma la wax dafa leer benn système la am dama gën a naw fi mbaa dugg dugg boy, man dugg dugg booy xool ñaanu ma ko yàlla booy. non doo dugg. doo dugg non rek. dañuy génn. waaw yow booy nga problème mu du yooyu nga may wax nii. Mm. man yooyu mooy sama problème moo tax bëgguma ciy duggaat sax. waaw coow jubul non ba tey ci loolu de. non coow barki de maa ngi dem fële. magat di mm. dóor sama benn ndiis foofu. Mm. te seen benn punkal benn ngën ndii nit boo xamante sama ginnaaw la topp teg ma soog moom it. looy ni. goon la moom génneel nga naa ma la. goon goon kooku man. goon chat déggoo li la wax de ko man sama maan bi li may dox nii nii. Ah. non du génnul ci loolu. non bàyyi sama leer laa lay tegal gi ngay taxal bàyyi ngay taxal lu leer laa la tegal booy. moo tax fi mu mana nii du daal booy xoolal. Mm. xam naa ne yow ngay joob moom moo gën a sedd quoi. ah kon coow jub ko béyoon nga ko filé coow jub. Ah, ma dugg samay tënel ak yaa ma gën a naw. waaw mais ab ah, justement am na looy keroog. keroog lan am na beneen dis de boo boo jàppoon kool bi loolu lan yow gayen boobu noonu sama lekk laa la wax nga bu baax bi la ndekete way xoolal kool bu dee la benn show laa ko mujj tayle ma ne ko wuy ma heure xaalis jox ma ko làkk ma angale moo gën nga may ma la déggoo li ma la wax de làkk ma angale moo gën nga may wax sa olof yi gis gayen nga su ma bi wàccee ma jox la sa moni kon yow yaa ngi yow foofu nga a noo wala eh. ko waa kii maa fis doxal ndox bi rek wuy ma naa la kool parce que am naa benn affaire bu gën a tay lu ne tal na la ba jàmm la li nga yëg bëtu seytaan dong la noonu sori na la nii wala jege na la kii mi ngi fexe mil pexe ba ne mbaal na la pexe daa sosu colère daa fasoo noonu laxasoog àdduna jàkk jaxasoo léegi chaque chose la ñu mettre cause nit dëpp raxasoo li mu naan pause dëgg la yaay mbër booba léegi yaay. tër na nga ci lii la wër sa am sër tax ba noon kër si kër si jege diw la bër dégg naa def lu baax léegi jafe na fii lépp ker fay naat léegi latta na fii du safara alaxira mi ngi lakke na fii ana kan moo ñu wala du ñu jëm a kattanal fi lu la xewe na fi fii te la yomb na fi nii njàkkare fekk tiitaange ci jamono bi di dëpp mel ni gisoo jekku laam bi soo ñaata wil ni gis ñoo fi dekku trahison jëmbët ñaani jàmbat jàmbat jàngat lañu wàngat langar bët bëtu seytaan ku ne am nga ko war